laay jël moom ñoo may may pour ma dem reeri boo xam moo tax ma yor carte d'identité jabet bi gisoo ko ça va na nga def waaw moom laa koy expliqué amoon dama jàpp waaw waaw waaw waaw yéegal yéegal ci oto bi yéegal ci oto bi moom laa ko man kon nag sëñ moom ma reeri boo xam waaw waaw fi laa génn fi laay libéré ay nen boo xam waaw d' accord yéegal ci oto bi rek waaw voilà voilà léegi man damaa jabet bu ma libéré fii nag amul reer te bu ma reer dama ko ñu ma léegi boo xam am na cere loolu tax ma génn carte d'identité jabet baa ngi jox naa Diallo benn bis jàppoon na ma fi ni ma comme que da ngaa jabet danañ la may nga reere bokkal bokkal laa préféré jëndi cere reer es li si yóbbaale. yow lañ di jox nani. Kébémer fan Kébémer fële Louga. waaw Kébémer foofu laa dëkk waaw. Kébémer nga jóge ñëw jënd si reer bokkal. ah fa laa dëkk laa non fii laay libéré ay nan fii laa nekk si zone bi mais bu guddi ma dem laaj ah. man man waaw léegi man ñu ne boo demee boo xam ne fa am cere soo gisoo insuline léegi man mënu maa am cere pour ma dama jox carte d'identité suukar bi ñu boo xam ne soriwul ma génn kii expliqué wu ma ne ko pourtant bi dugg ci ngoon romb naa leen fii ba nuyu leen léegi boo xam ma jënd fa reer moo ma tax a fa laay bi fu ma dugg ñu ne ma amuñu reer mujj na sax dañ may daw naan ko vraiment ma ne leen dimbali ma lu ma lekk laa ko dinañ ñu ma ni ma demal fa moo tax ma jox carte d'identité jawet ñoonu lii moom ak génn meeru dara boo xam boo demee xaw ma Ndeye Ndiaye wax yow yow lan ngay transporter ay nen waaw waaw wàccal waaw léegi tegal loolu nga wàcc. waaw. tëjël tëjël tëjël beneen kii bi. li nga yow yëpp ay nen la. waaw nen rek laa yow moom laay libéré fii mais dëkk bi foo dugg ñu ne amul cere mu fonde. wóor na yàlla fii gis naa ne bu ñu tooloo mu ñu ma léegi moo demee waaw boo demee bokkal boo laajtee ndey jaay dañ la jaay cere. man faaree loolu moo tax a génne nii bokkal nii nuyu naa leen sax ci ngoon bi mooy dugg. waa d'accord tëjal tëjal oto bi tëjal oto bi tëjal. yow waa sëñ bi wuy yow transport de marchandise ngay def yow mën nga daw heure bu la neexee. waaw léegi déglu ma waa déglu ma déglu ma déglu ma jarta tiit jarul ragal ñun suñu liggéey rek la ñuy def yow boo rombee di dem dañ lay arrêté xool lan ngay dox ak loo yeb moo tax ñu ne fii xam nga newuñu fii rek pour taxaw oto yi di romb ñu leen di xool sinon suñu liggéey kon dañ koy xoolaat voilà léegi nag waa déglu ma waa déglu ma rek déglu ma rek yaa ngi dégg kon bu ñu la arrêté bu ñu la contrôlé bu ñu amul lu ñu lay jàppee dañ lay bàyyi nga dem jëndi sa cere dégg nga waaw amul benn problème mais nag am na leen lu ma la bëgg a dénk tamit del takk masque. kii nag kaala ah.

waa d' accord waa c' est bon c' est bon garaawul jël ba jël sa bagage balaa mu réer bokkal ngay fanaan waa demal amin ñàkk wér la ah. parce que liggéey bi ngeen nekk nii rafet ñu ngeen di dimbali waaw bëgg suñu réew yeneen réew yi li ci nekk waaw demal nga yegg nga yegg ak jàmm am am am am am léegi xoolal ay masque ngi nii gis nga day jërëjëf grand seen liggéey pour nga teg ko ci ot da koy takk dama koy takk léegi kay très bien jërëjëf yàlla na leen yàlla voilà